jërëjëf ginnaaw buñ sante sunu sëriñ sëriñ Muntaxa ñaan yàlla mu yàgg suñu kanam bi jaay xaadimal Moustapha parce que tey bu ma amee manuk mën a jóg taxaw mën dem ci nit ñi seeti leen loolu sëriñ Muntaxa laa koy sant ndax bi ma accidenté ak tey ci trois mois kese la yem mais bi ma jotee daf ma wax ne ma dara duna ci jot sëñ Tuubaa la bëggal boppam dana la yëkkati nga delluwaat say liggéey. Euh, tey nag li ñu yëkkati. moy dafa fekk euh biñu dem ci élection yi ñun dañoo lu ko jiitu ci parrainage yi dañoo jógoon yónni woon Xaadim Sylla mu dem parrainer ji fu bare bare bare ci biir dëkk bi bañu parrainer 4000 et quelques personnes lu bokkut ak bi nga xamé ne carte d'identité kayitu juddu yi nga xam ne nañ ko ak carte d'identité bëss buñu bi lu bokkut ak mom parce que lolu defoon nañ ci 3000 2000 personnes yo xam ne defar nañ ko ginnaaw bi le génn ci après parrainage.

ñu dem ñëwaat sant si leen yéen ñu wataloon moo tax tey dañoo jóg ñëw sant si ñu ñu wataloon kon chef de village ñu ngi leen di sant di sant jigéen ñi di sant mboolem fi ñu jaar ak fi ñu demagul ñu ñëw pour sant leen xool si ndox mi nuñ ko defee ci loolu li tax ñu leen sant buñ ko waxee dana jaaxal ñu bari mais ñun suñu nit dañ leen a engiré woon parce que gis ngeen avant élection jeudi boobu dajale woon nañ lu mat mille personnes yoo xam ne ku ne yoroon na carte d'identité ñu génne ko ñu wane ko muy boon phénomène bu bees. bi nga xamé nak né élection yi élections élection dafa am lu mu électeur la laaj participation élection ñu Nous né Touba participer nañ ci élection participation parce que tout dem nañ ci 37 et quelques voix yo xamné bir Touba la joggé muy ci commune Touba ñu amadit lu ci euh, et quelques yo xamné moy département mu wone né yi nga xamné dañoo nekk Touba département te ñu doon dëkk yoo xam ne Serigne Touba moo ko sanculu waa kër Serigne Touba sanc ko yëpp gañe nañ ko yemuñu ci loolu mooy Touba am nañ fi trente cinq mille et quelques trente sept mille et loolu dañ koy sante mun Mountakha sante ko Serigne Touba di ci profité waale di wax ne nit ñi nga xam ne dañoo jóg yàq pour diaboliser président de la ak askanu Touba loolu ñu wan leen ñun nekkuñu ci tey ji wàccaat nañ ci terrain fas yéene continuer pour jàppale président de la République te duñ ci arrière te xam nañu ne waa Touba ci loolu lañu nekk loolu mooy dëgg tey nag malgré ñi nga xam ne ñoom lañ doon jàmmaarloo dem nañ ba créer fi ay dof yoo xam ne dañoo créer ay nit njaay yoo xam ne ña ngi leen jëlee ndar indi leen Touba biñ koy toppee ndar la ko Idriss Seck jële indi ko Touba ñu ñëw fii di wax ne sëñ Touba nee na ku woteel Macky Sall sawar nga jëm. te loolu rek ne dama doon wax ci biir élection ne fen wi rek jar na bañ ko woteel loolu leer na gis nañ ne sëñ Touba neexut a nax man nga nax taalibe yi mais nag nax sëriñ Touba kenn mënu ko moo waral bi nga xamee ne mm, mbir ma jeex na ba nga xam ne suuru élection weesu na leer na nañ ne président Macky Sall daal di ne gagné ne sëñ Touba ànd na moom te xalifa diini kilifa diini tout Sénégal yëpp ànd ak moom parce que Alaaji Malick mooy sëriñ Touba kon moom bu jógee fële lépp da ko defoon ci jaxase tarixa yi loolu nag ñiy ñaan nag. di ñaan président de la ñu dugal benn loi assemblée national boo xam ne kuy politique yi bu ci dugal kilifa diine yi. taal kër diine yi politique mënu ko mais jaxase gi gi ñu jaxase euh, xali kilaafa yi mën na taal réew mi. loolu ñu ngi ñaan ñu dugal projet de loi assemblée national boo xam ne nañu génne affaire tarixa yi ñu def ci biir politique bi nañ ko ci génne loolu nag ci laay profité ñun waa Touba dañoo am loo xam ne mooy sunu yitte fi mu toll li ñuy wax te loolu mooy sama yitte man ñaar laa am sama yitte élection nañ def li ñu war a def li nga moom la ñuy wax demande sociale mooy Khadim Sylla mi président Macky Sall na ko daal di def ministre mbaa directeur loolu moom dañ ko soxla dañ koo soxla mooy sunu yitte nee naa Khadim ak Cheikh Abdou Lo bu ñu leen defee ministre wala directeur ñu dooleel leen Touba dana am jàmm. dégg naa nag ñuy conseil départemental man candidat la dama ko war a jiite parce que ma ko jiite Touba am njëriñ du ma ko bàyyee kenn man maa koy kenn mu naan conseil départemental mayu ma ko kenn ku yalla bind mais nag ni nga wax président de la République ne ko sunu demande sociale ci Touba mooy Khadim Sylla mii ak Cheikh Abdou que def nañ ci dëkk bi lu ko jàpp Khadim Sylla dafa reyal dafa reyal boppam Touba nekk ci li mu war a nekk te gëm nañ ne buñ ko defaree buñ ko defee ministre mbaa directeur ñun ñii day ci Touba suñu njëriñ la njëriñul waa Touba loolu nag mooy suñu di am njàngam mate na ko non non passé na ko professeur nañ waxante dëgg ku def dara da ngaa war a am lu rëy daa sonn moog ñi mu àndal te gone yi yëpp ci moom lañ nekk te gëm nañ ne buñ ko jàppalee jàppale ko dana dana mën a doon dara tey yaakaar nañ ne ah président de la Khadim Sylla mi ngi nii ñun moo nekk suñu kanam moom la ñuy pousse pour ñu def ko directeur mbaa ministre président yow lañ ko ñaan ab yaram may na ko ay tegginam may na ko nangoo liggéeyam may na ko Cheikh Abdou loolu la loolu nag mooy sama actuellement nii loolu mooy sama yitte. bu bëyee nag li ñu wax conseil départemental moom man maay candidat bi parce que gëm naa ne bu ma ko jiitee li ngeen di wax ci problème mu tool yi ma jàppale ndox ndox ngeen am ko créer ay tool toolaan ci dëkk bi dana gën a yomb parce que man ci loolu laay liggéey ñi ngi wax ne directeur ministre bi yor agriculture ak ki nga xam ne mooy Macoumba Diouf directeur ñu ngi ko mu gën a jàppale waa Touba jàppale ñu ci programme yi lii nag yombul mooy politicien boo xam ne nga def élection ba pare nga dem jaaraat fa nga jaaroon benn politicien ñemew ku ko ñeme yoon waa ngi nii man dama digewutoon dama doon def loolu ma doon def it maa ngi ciy sant ñenn ñu néew parce que tey xaarim mënu ma ñàkk bañ a wax ñu bari dañoo jàpp ne élection yi jox nañ ma xaalis kenn joxuma na leer nañ Abdoulahad Ka jox na ma un million non damay wax de bu dama koy wax Abdoulahad Ka jox na ma un million maam Xari Mbacke jox na ma trois cent mille euh, sëñ euh, Basirou Mbacke xaarim Awa Ba jox na ma deux cent mille lii laa fi am ay ndimbal keneen ku ma jox ndimbal dana ma fii la ko def.